bar ca fara waaw moo nu daan jàngal njàmbaar ca Sanfara waaw moo tax immigré légui ñom waron nañ ko fekke mom dañ leen dimbale bu baakha baakha baax wa fil ardi man an lil karimi yani al adha wa fiha liman khafa al qila mutahawwal la amruka ma fil l ardi diqun ala mriin sara rahiban aw rahiban وهو يعقله وهو يعقله waaw wa huwa yaqilu waaw yadoonanaa raxaban wa rahaban yadoonanaa raxaban wa rahaban yàlla nee na ñaar rekk fi nekk ki bëgg lu baax rekk jiital ma ca te am fit ak ki ragal jiital ma ca te am fit ne ñaar ñi rekk fi nekk yàlla ko wax ci bu ko defee nag boo ca raxee xel rek yëpp dina marché waaye boo ci raxul xel lu baax waaw yadoonanaa raxaban wa rahaban mu dellu ca chanfara waaw mu dellu ca chanfara mag ñi ñu amoon kenn amuleen mag ñi ñu amoon kenn amuleen te booba daayira xewul kërëb kërëb xewul xëccoo xewul dara xewul ñoom rekk bu ñu dee juróom benn bu dee juróom ñaar dangay waar tabarkalla tabarkalla booba kuy ziyaare si sa fas ngay waar bésu àjjuma lay doon nga ànd sa ñaari xaleel boo ñëwee dem julli juma ñëw añ ñaan lu fàttee dellu ca àll ba bu ko defee bu dee samedi ak dimanche ñaari fonctionnaire wala ñett yi ñëw bu ñu ziyaaree samedi fanaan bërset ñu ñaanal leen ñu jël saxaar dem booba kenn nekku fi bu talaataa nag mag ñi rekk a fii ne Xaaji Maxtaar Sàll fii Sëriñ Biraan Saar fii góor gi Sayer mbay fii Serigne Alioune Guèye fii sëriñ Moussa Niang fii sëñ kër fii bu ko defee ñuy xaar Serigne Cheybatu mooy mujj ñëw wallaay ndeysaan mooy mujj ñëw te boobu moo raw góor ñépp waaw yàlla xam na ko waaw ndax boobu dafay tari Maxamatul Hariri yi comme Fatiha ñaar rek ko daan tari ci senegal ba mu daj moom ak Mor Sassoum Jaxate bu ma jaxate kala dañ daan tari maqaamaat xarir yi comme fàtte moo tax euh, euh, Mor Saasu wax arab ko gënoon a yomb wax wolof yàlla xam na ko kenn melul ni moom bu ko defee rek ñuy toog di xaar Serigne Cheibatu parce que moom li ko gën a yitteel ci àdduna mooy yëkkati dépense jox waa këram bu xëyee balaa dem fenn def ko waaw bu ko defee bu ñëwee rek ah sëñ Babacar koy jëkk a tooñ dañ ko daan woy yaa Aba Zeyd wallaay ndeysaan seetal loolu parce que Abu Zeyd personnage la boo xam ni Imaam yi moo ko créé Imaam yi moo ko créé personnage bu ñuy wax Abu Zeyd ñu ne nag Serigne Cheikh Batu mooy Abu Zeyd ndax wàllu stratégie mooy ci mënoon góor ñëpp bu ko defee bu ñu toogee di ko xaar dañuy triste waay waaye bu jékkee jékki ni jëleeñ ci seen kaw rek sol forok forok rek lay sol du sol mbaxana yenn yi du sol daal boo agsee rek sëñ babakar ni ko yaa ba Zeyd wallahi ndessane bu ko defé mu tàmbali taarajtu taarajtu la raxbatan fil laraj walakin walakin li aqraa babal faraj wallaay ndeysaan bu ko defee ñëpp kontaan xool yëpp feex xam-xam bu rëy rek wallaay ndeysaan góor gi Sayer Mbaye moo ma daan wax ni man kaay ma wax la leen man banaana rek la te jàng naa ci alxuraan ñu ni yéen eh, garab ya nuy am ci àjjana eh, xutoofuha daaniya foog naa ni banaana la de ma ne ko waaw waaw pii <laughs> xam nga yooyu fi jiitu moo tax lu ñu nit ñi woon rek ay enfantillage lañ koy jàpp wallaay xam na kenn mësul gis loolu kenn mësu ko gis tabarkalla la ñoo ñoo fi nekkoon dafa ñëw fi nekkoon yàlla di leen baaxal rek sëriñ Cheybatu nga daan jàng ci moom ba noppi mu jàngal la li mu lay jàngal ba noppi nga dem sa kër ba deux heures du matin mu fëggal ni la lu ma la wax ci passage sàngam nga ne ko nàngam ak nàngam mu ne ah dama juum dama juum lu noonu de waaw daal di lay wax na mu nekk waaw te dafay topp sedd biit ñëw du sol mbaxana ñooñu la no Serigne Aline Gueye waxee nopp Serigne Aline Gueye waxee nopp Serigne Moussa Niang waxee nopp Serigne Birane Sarr waxee nopp dégg nga ña ca des ñëpp nag noonu la ñu mel waaw Alaaji ah, euh, maanaam euh, góor gi mëggee njare bi ngeen xam yéen ñëpp. mu ni ma sama ñett yi mu ni ma sama ñett yi sama bët bii tegu ci Maodo teggi ko woon ba Maodo yëkkati ko teg ko ci Babacar Sy ko ba Babacar Sy yëkkati ko teg ko ci yow teggi ko nan jàng fàtte maa ngay dem mu dem rek quelques jours après ma dégg ne faatu ma xam ni daf doon tàggoo yàlla xam na ko doom baa ngi fi laaj ko ko ci kanamam la kanamam la Sëriñ Aliou nag moo ma wax ni man de mënuma fay sa maam xam nga ni Sénégal Sëriñ Aliou na ci raw te feeñalu ko man xam naa loolu parce que jàng naa ci moom lu jege fukki at wax na xam naa loolu mu ni ma sama baay ku bari jom la te yàlla nattu ko ci man ndax lu ma masaan jàngal ci ngoon bu subaa ma fàtte ko lu ma masa jàngal ci suba bu i ma fàtte nee na ma yëg ni mi ngi souffrir ba mi ngi bëgg a dem àllax te may xaw ma lu ma dal nee na nu waxtaan ba d'accord ci ñu jox ma Maodo mu ni ma keroog bi ñu ma joxee Maodo ba fii ma taxaw ak yow di wax ak yow amul xaraf bu ma fi Maodo jàngal ma fàtte amul xaraf bu ma fi Maodo jàngal ma fàtte mu ne ma xam nga loolu na mu tudd ma ni ko waaw mu ni ma lu mu taalif maa ko bind te lu mu bind mokkal naa ko mu ne ma waaye nag li ma sa baay defal moo dàq ndax dafa ma téye ba rëccu ma daf ma téye ba rëccu ma gis nga bu ma rëccoon tas réew ndax ñi fi nekk yëpp maa leen raw ni ma toog ku sérieux la fi nga may gis ku sérieux la waaw kenn ñemewu ma te ñi fi nekk ñépp maa leen raw bu dul woon sa baay ma tas réew mi la waaye gis nga mi ngi ma téye naj ma Buma xey nek yeni ndongo da yeen ñi ma jur leen di seen sëriñ jangal leen waye tay mag yéen a bokk âge nuy andalo di doxantu di toñante mu ni ma loolu dama lay laaj aljana ju ko ah? dama lay laaj aljana ju ko ah? bu ñettel bi duma la ko wax ndax kon dag may reta <laughs> mané ko tian ko wax rek mu gis nga man ku bakkar la ndax dama ragal ayu nit mu ni ma parce que nit ayam yenn nañ ci Yàlla musal ma ragal ayu nit waaye ma gis am noo ciy dimbalee ba fi mu ne gis nga gaynde bu taxawoon fii léegi ma àttan ko sax song pour rend ko ngir yàlla ak yow yaa ma dimbale ci pas-pas ba ma àgg foofu ndeke booba it dafay tàggoo moo nga dafay tàggoo yàlla xam na ko ndeysaan noonu rek ma tàggu ko tukki dem dellusi si rek ñu ni ma sa góor ga daal ma nga feebar sët léegi booba dafa doon tàggoo tabarkan yàlla xam na ko mu des sëriñ Moussa Niang mu ni ma man de li ma doon ngéejoo mooy ñu seddi ma cër ci sa tariqa turandoo bi ba yàlla defal na ma ko ijaasa bi ma ci am ñeewatuma benn doomu soxna mu ne ma sa baay faf ko dëgëral def ma may ilimaani jàkka Maodo mu ne ma bu ko defee nag gémmiñ jàpp ma ah nattu dal ci sama kaw tubaab yi jot ci man te nag fa suma yéene ñu am ci man yoon te duma ko jaar ci biti duma koy jaar ci sa barke turandoo waaye booba fekk ne ah, tubaab yi dajale yi ñu dajale yëpp pour jàpp ko pour jàpp ko moom Serigne Moussa bi ma xamee ne noonu la affaire bi demee ma dem seeti procureur ni daal góor gi dafa sañu génn territoire bi ndax yoon dafa am lu muy àtte ci moom

ma waajal góor gi mu dem màkk ba mu dellusee waxatuñ ci affaire bi ba dara ba fii nu toog yàlla xam lu ko mu ne ma kon nag ñett yi bii sa maama bii sa bàyyi bii yow wallaay ndeysaan pour wax la ni yooyu boo ci jaaree yi nit ñiy wax yëpp ay enfantillage nga koy jàpp yàlla xam ne dañuy font rek waaw parce caaxaan baaxul te ñoom ñëpp nag ci boobu façon la ñu nekk tabarkal tabarkal tabarkal maa ngi fàttalikoo xam nga ndakaaru la laa nekkoon di jàng alquran booba sëriñ Abdou moo ma amee booba Alaaji Abdou kenn waxagoo demagul Makka booba sëriñ Abdou rek lañu wax soo amee soxla daf may bàyyi ak Mahamed Yahya mu bàyyi ma ak Alaaji Cheikh Ndiaye Mabé may def noonu waaye am yoon boo xam ni dafa xaw yàgg ci tukki ba te ñoom nekkuñu fi ma xaw jaaxle ma jékki-jékki rek dogu pour dem Tiwaawan ma ñëw ci gaar bi maa ngi gàddu sama sakos aw ma paas am ku ma gis ni ma waaw loo doon dox nekk booba chef gaar yi tubaab lañuy doon mo wax ko waaw man dama nekk fii gisuma sama sëriñ sëriñ abdou te dama xaw tawat mu bëgg dem jawon ah mu dal di xam affaire bi nag ni mu dem mu ni ma koo fa xam bu ñu la toppatoolee pour nga dem kan moo lay teeru ma ni ko am naa fa benn tànt bu ñuy wax fan njaay yàlla mu dal dem dem dem dem ndekke jël na contact ak chef de gaaru Tivaouane ni ko ci secret na nga fexe ba xam ku ñuy wax fan njaay nga wax ko ni ko na teeru Cheikh Tidiane ci saxaar sàngam dama ñëw rek fekk fan ca gaar ba mu dima teeru yàlla xam na ko dégg te dañ ma booleeg chef de train bi mësuma gis mu ko ñu am yitte comme nit ñu mel noonu walla yàlla xam na ko eh, Alaaji Abdu it ñëw Dakar ñu ni ko Cheikh dem na Tiwaawan ndeysaan trois jours après mu ñëw Tiwaawan bi mu ñëwee mu jaar si kër gi mu yóbbu man ba noppi ni ma dama lay invité añ est-ce que ñëw ma ne ko waaw mu ni ma kon nga fekk ma ca kër Mbay Njaay Yaasin foofu lañuy ñuy añee ëllëg mooy ñaay Yaasin Fall bi wallaay ndeysaan ci ëllëg sa rek ma gis sama benn mbokk dara ma ne ko du ñëw gunge ma damaa añ yi ak sama sëriñ mu xaw a ragal ma ne ko déedéet nan dem rek ñu añ ñu dem añ bi ñu añee ba nag mu lekk tuuti daldi di suur sëriñ Abdou ni ko dollee mu ne ko regg naa mu ne ko bul waxati rekk naa waay del wax suur na ca laa soog a commencé ndeke nit wax wolof sax dañ ko kaa corrigé yàlla xam na ko mu ne ko bul waxati rekk naa mukk del wax suur na noonu bay njaay yaa seen intervenir ne ah mag ñi de ca ndar sax dañoo wax rekk ni doy na li ci des yàlla na ci yàlla def barke ñoom noonu lañ kaa waxe moo commencé nag yooyu xaw doy waar moom nit léegi li nit ñiy wax doo xam la wolof yi ñuy wax léegi wolof yi alkande la rek kenn xamul ban la yàlla xam na ko pour wax la rek ni yooyu euh, dafay tax lu nit ñi defati ay enfantillage nga koy jàppe yàlla xam na ko bu mel ni kon nag ah loolu mooy cëru sunu sët yi ci Moustarchidine ñoom ñoo moom héritage yooyu bërki dem rek laa ci waxtaan ak euh, sëriñ Pape Malick bii mu àndandoog sëriñ Moustapha ma ni leen nit man leen sëñ Babacar dafa ma ni bés bu la kenn gënal sa bopp waaw ko man leen yéen itam bu leen kenn gënal seen bopp waaw bu leen kenn ndax dama ñëw tàggu ko samedi la ca ngoon ma ni ko maa ngay dem Dakar damay présider ji benn daje boo xam ni ala jëmat Lamine jéem a cee nekk ak ala yi su jóg ma ne ko te àdduna yëpp nga fa mu nga tëdd moom sëñ Babacar ma tàll sama loxo mu ñaanal ma jàng fàtte ba àggal ni ma doom bu la kenn gënal sa bopp waaw ma daal di fa bu ñëw Dakar naka laa wàcc ci oto bi rek amat Lamine jéen déey Serigne Abbas Thioub ni ko sëñ Babacar dafay dem mu ni ko lan mu ni ko dafay dem waaw bi Cheikh wàccee rek laa xam ni dafay dem dimanche altine sëñ Babacar génn àdduna pour wax la ni mag ñi ñu am kenn amuleen mag ñi ñu am kenn amuleen moo tax loolu mu wax ni nit ñi dañuy tooñe làmmiñ te ragal naa bés géej gi mer rekk wan na Cap Vert dafa am ku ci bind lettre ni ma ëmb Lamine Diène fu mu ko teg ma ni ko ci xadis ma ni ko ci xadis bu wér la ko teg ma ni ko gis nga euh, am na sax ku ko tudd ko xamni du yonent bi muy ku ñu wax Aflatoon Aflatoon fay le suuf la xam nga mom ngeen di wax Platon ah. mom dafa wax ni parce que yonent bi bokul ak philosophe parce que philosophe dafa wax lu bare tiré ci lu yamamay yonent bi wax ñaari baat tiré ci lu matal aduna waaw ah, bokkuñu c'est pas la même chose Aflatun dafa wax ni dafa am benn prêtre benn prêtre égyptien bu ko nettali benn histoire ni ko dafa am benn site bu tudd Atlantide yàlla baaxal seen jaw baaxal seen ndox barkeel seen suuf ñu topp ko ba tëxe te tëxe te yées ci doomu nee na koo dajeel rek ma ngay tagg boppam noo fi dàq ceebu jën noo fi dàq bax noo fi dàq cuuraay suñu jigéen ñoo fi dàq sañse ñoo fi dàq fecc ñoo fi dàq tëgg di ko def ba waa asamaan yëpp àndandoo ni yàlla on en a assez mu yabal géej gi rek mu wan na ko <coughs> ba léegi ñu ngi seet seen seen jeexit kenn gisu ko <coughs> kooku Aflatun moo ko nettali mais bu ëmma Lamine Diène bi moo ëpp importance parce que dafa tegu ci xadis te xadis la boo xam ne boo dul borom mantal doo ko mën a xam mukk parce que yonent bi dafa wax ni dëkk bu nga xam ni ña ca nekk dañuy takk seen ndey di tëdd ak ñoom tëraa yu bànneex nee na yàlla toléré ko moo ko gën a yomb dëkk bu nga xam ni ña fa nekk dañuy ruur toolu gor